xamante ne ñaan nañu wala ànd nañu ak autorités yi compétent yi ko war a defar ñu jàppalee ba ñu dindi maanaam lépp loo xamante ne épave la ci tali bi insalubrité bi nga nekk ci mbedd bi ak ak yenn yenn euh, comment dirais-je occupation anarchique de la de la voie publique luñ ci dindi rek ñu fexe luñ fa def parce que objectif bi loolu la dañoo bëgg espace yëpp yi nga xamante ne mi ngi géejawaay ndax géejawaay bi ñu koy lotissé dañ ko lotissé maanaam mu am ay terrain de football mu am espace pour jàkka am espace yoo xamante ne dañ ko def juste pour la jeunesse mais tey jii espace yooyu yëpp mënoo ko mënatoo ko gis tali bii moom mooy euh, euh, jàkka Abibou Diaw ñun ñëpp xam nañ ko ana jàkka ja lañ koy wax waaw soo jógee soo jógee lycée Limamoulaye boo booy wàcc descente bi sa xel yëpp fii lay nekk parce que yaa ngi xalaat exactement bu fi oto bi yegsee nu muy demee ak yow rawatina nag boo yoree malade tey jii espace yooyu yëpp mënoo ko mënatoo ko gis tali bii moom yenn euh, yenn comment dirais-je occupation anarchique la de la voie publique luñ ci dindi rek ñu fexe luñ fa def parce que objectif bi loolu la dañoo bëgg espace yëpp yi nga xamante ne mi ngi géejawaay ndax géejawaay biñ koy lotissé dañ ko lotissé maanaam mu am ay terrain de football mu am espace pour jàkka am espace yoo xamante ne dañ ko def juste pour la jeunesse mais tey ji espace yëpp mënoo ko mënatoo ko gis tali bii moom mooy euh, euh, abi bu Diaw ñun ñëpp xam nañ ko ana jàkka ja lañ koy wax waaw soo jógee soo jógee lycée Limamoulaye boo booy wàcc descente bi sa xel yëpp fii lay nekk parce que yaa ngi xalaat exactement bu fi oto bi yegsee nu muy demee ak yow rawatina nag boo yoree malade